waaye chorégraphie boobu fecc yi kenn xamul fecc lan la xamuñu dañ doon karaté xamuñu dañ doon taekwondo siri ñun mbalax ñoo ko moom ah, fecc Sénégal ñoo ko moom kon nag ci war a defar lu rafet mais sa booy nekk fa di tëb di majéeri kenn xamul lu ñuy def Sidi Diop baa dafa war baysal ñun loolu la ñuy laaj Sidi Diop nag dañ ne dafa bàyyi managem wala managem dafa bàyyi waaye lan moo tax managem bàyyi ndax def na fi benn rassemblement bu rëy fii ndakaar woo ay militant am loolu nag moo tax xam naa gouvernement bi ne kii il faut ñu jug ci ay mbiram la daan àndal Papis Konaté newoon na ko bàyyi xumbal bàyyi folklore Papis Konaté ne ah pare na léegi ñu nit dafay fàttaliku nitu démbam ndax Baye Sall fii la génnoon yàq fi coon sekk li ne xame ñoom yàq fi waali sekk li ne xame ndax coon sekk pénc moom lu ñu wax rek moo ne njëkk a may njëkk bay xaw ma lan xujantan xujantan waaye boobu mi ngi bëgg sàppi nit ñi Sidi Diop il faut que mu am personnalité boppam ñëw def benn zapping bu gaaw ci Sidi Diop ak Sonko Sonko dañ ko toroxal fële ca Ndar Saint-Louis ndax dafa am benn réunion bu mu doon def ñu fekk ko ci saal bi daal di ko génne polis moo ko fekkee daal di ko génne loolu doyul mu génne lay dem ci mbedd bi demaat ci mbedd bi ñu fekkaat ko foofu nekko ko doo ko fi waxee ba ñu wane Sonko ndeysaan mu mer daal di xuloo policier bi di ko wax ne ni dañuy wax wax dëgg lii doy na waar lii nag dafa wane ne Sonko fu mu nekk gouvernement bi dañ ko teg bët ndax maître El Hadj Diouf dafa génn mu ne Sonko moom xaalis bu mu yor ay terroriste ñoo ko jox ndax gis bi waa Sonko ñu ne ñoom 10 milliards la ñuy fii ak élection 2024 dafa am ñu génn nag am na kenn koo xam ne seen la sant nekk ci parti PIT ak maître El ñoom dañ Sonko mi ngi xaalis bi 10 milliards yi fi mu nekk day jëmm a nëbb nëbb pour wax ne waa Sonko waa Pastef ñoo ko jox xaalis bi dafa bëgg li ñuy wax blanchir maanaam setal xaalis bi nga xam ne ay lobby wala ay terroriste ñoo ko jox loolu tax xëy na Sonko bu demee Saint-Louis dina tiital nit ñi ndax bu leen fàtte ne Saint-Louis ak Mauritanie dafa jege tey Sénégal terroriste yi bu ñuy dugg Mauritanie la ñuy jaare waaw kon nag loolu tax fi nekk Sonko gaa yi dañ ko teg bët bu leen fàtte ne am na fi benn soldaa bu ñu fi jàppoon bu sàccoon ay ay gànnaay yu bëri bugg ko rawalee ci ay terroristes yi nekk ndar kon nag fi mu nekk Sonko fi mu nekk dañ ko dañ ko teg bët ndax tuumaal yi ñu koy tuumaal waaye lii dafa war ne Sonko mi ngi ci guuta ndax moom Mamour Diallo bii mu tàqal moom gis nañ ne moom ak président bi wax dëgg amuñu benn problème ndax président bi mu demee Louga ci euh, famille Serigne Seydou Nourou taal gis nañ Mamour Diallo teer bu rëy bu ko teeru ñoom ak waa dolli gis nañ maire Moustapha Diop moom ci boppam nee na léegi dafa bëgg liggéey ak Mamou Diallo kon bu fekkoon ne ñoom dañu xam ne Mamou dañ ko takkal ci 94 milliards ndax dafa am lu mu jël duñ fi nekk naan dañuy jéem a liggéey ak moom di jéem a jaxasoog moom waaye Sonko fi mu nekk nii mu ngi ci guuta bu rëy li ñuy wax marquage à la culotte ndax def na fi benn rassemblement bu rëy fii Dakar woo ay militants am loolu nag moo tax xam naa gouvernement bi ne kii il faut que ñu jug ci ay mbiram waaw te xam naa ne tribunal bi yàggatul léegi lépp dina leer ci affaire 94 milliards yi ndax moom 46 milliards la waxoon xam na banque bi xam na libellé yi xam na compte yi léegi mu ne OFNAC jox na ko dëgg te OFNAC bu génnee rapport rapport bu kenn liiru ko ko ndax rapport bu confidentiel lay doon moom mu ne OFNAC jox na ko dëgg te OFNAC woowul Mamour Diallo woowu ko kon Sonko ñëpp xam nañ ne dafay ñuy wax surenchère lay def maanaam day yokk léegi nee na 93 milliards. deux cent quarante millions fay nañ ko Sonko daal kenn xamul fa la jëlee ay xibaaram waaye fi mu nekk mi ngi ci guuta guuta gouvernement bi dootu ko bàyyi muy def lu ko neex Sidi Diop nag dañ ne dafa bàyyi manager wala manager dafa bàyyi waaye lan moo tax manager bàyyi loolu dafay wane ne dafa am problème ndax manager bi boo ko xoolee ni mu doon waxee xool bët yi xam ne kii dem bi neexu kan mooy ànd ak star mu dem ba commencé naaw commencé euh, rëy nga bàyyi ko Sidi Diop baa dafa wor Baysal ñun loolu la ñuy laaj question yi kenn ñemewul laaj ñun ñoo koy laaj ndax yow nit du la du la gunge nee na ba muy xaman ba muy xamante yow 400000 francs rek nga am gunge la nga def grand théâtre yu bëri amoo euh, sax album ngeen def grand théâtre nit dafay fàttaliku nitu démbam ndax Baysal fii la génnoon yàq fi coon sekk li ne xame ñoom yàq fi waali sekk li ne xame ndax coon sekk penc ba dafa waxoon dafay dëgg ñu dem ci biir coon sekk fomb waali sekk ñu ne fële esplanade Sidi Diop moo doon def premier parti waali sekk Waly Seck ñoom ñu ne ko da ngay wàcc Baye Sall moo fi génnoon di xeexal euh, Sidi Diop kon Sidi Diop bu fekkee dafa am yeneen promoteur ba mu tax mu ndara bàyyi ay nitam ndax gis nañu Papis Konaté la daan àndal Papis Konaté newoon na ko bàyyi xumbal bàyyi folklore Papis Konaté ne ah pare na léegi ñu ne bàyyi Baye pare na ah bu yàggee Sidi nit yu baax yëpp nit yi am talent yi di la bàyyi lii doy na waar nañ wax nañ waxante dëgg Baye saal bu ci gisoon boppam xaalis bi. Euh, mu am ci mu ci war a am du bàyyi naan day dem liggéeyal famille am nañu waxante dëgg Sidy na def attention te xam ne nit ki da ngay am kóllëre waxuñu ne rek ah, mais man mënuma comprendre lu tax Baye Zale ñëw rek bàyyi nii Baye Zale du wax lépp du wax lépp waaw mais nag Sidy grand théâtre bi même Momo Sen TV mun ngi ko ko doon wax ne ko yow xanaa bii paa da ñu defal show bu baax parce que gars yi ñoom dañ ne da ngay ambiance rek ambiance rek mais Sidy lay def waaye dañu waxante dëgg ah gis nañ fa ñoom Bass Thioung gis nañ fa ñoom El Hadj Keita gis nañ fa Balla Gaye kon ñëpp xam nañu Sidi egsi na mais nag xumbal bi est-ce que Sidi dina ko mën a bàyyi wala dafa nekk ci deretam ak way wayu jàmbur ndax ba mu nekk ci moom lu gaaw gaaw mi ngi wax mm, euh, Ndiaga Mbaye moom lu ñu wax rek mu ne Ndiaga Mbaye xaw ma lan xujantan xujantan way boobu mi ngi bëgg sàppi nit ñi Sidi Diop il faut que mu am personnalité boppam il faut que muy te mu bàyyi wayu Ndiaga Mbaye di wax Sénégal man nag maa ko fi mën saabu du fóot boppam Sidy Diop il faut mu am modestie ñëpp xam nañ ne am na talent waaye chorégraphie boobu fecc yi kenn xamul fecc lan la xamuñu dañ doon karaté xamuñu dañ doon taekwondo Sidy ñun mbalax bi ñoo ko moom ah, fecc Sénégal ñoo ko moom kon dañ ci war a defar lu rafet mais sa booy yooyu nekk fa di tëb di majéeri kenn lu ñuy def chorégraphie boobu rafetul fu ne ñu jaamante fa di dugg di bëma xënd ci scène bi scène bi jaxasoo lëbëjoo Sidy dañ koy wax rek ah xale nga mais il faut que bo bëggee di def ay soirée de gala hein il faut que ngay way ndank ngay way wayu classe sinon ken du la invité pour ngay def ay soirée de gala ndax yow xumba rek ngay mën ndax DJ Bouss ba mu la invité gis nga loolu nga fa nekkee won fecc yu metti sax sa boy bi nek fi di fecc booy hooboo fecc fecc yu metti ken xamul li lu muy ndurul si di am nga talent mën nga fecc même yow sa fecc sax légui dafa commencer jaxasoo dafa commencer le ñëw waaw ñun nak am nga talent mën nga way sa baat nga war a nga nga wàññi xumbal bi nga wàññi ambiance bi ah mais nag bu fekkee ne yow loolu loolu moom mooy sa carrière ah bu la neexee ndax yaa ngi am xaalis dégg naa avril sax am na beneen promoteur bu ko jël ñun dañ koy encouragé di ko critiquer parce que am na talent mais li ko dese bëri na te bu mu fàttee ay nitu démbam voilà ngaa ko balee na nag gis nañ ne am na ñu ma naan moom moo njëkk mbay ngaa blend xaalis ngaa ko blend kon lu tax ngaa blend dolloo ko ko xanaa ngaaka ngaaka dafa xeb parce que ngaaka bu bu da nga ñëw ci show mu présenté la ay nitam ñu baatara la ay ay dix mille dix mille ba mu mat presque cent mille romb ko yow nga ñëw di may ay cinq mille ngaaka ngaaka mën na am dafa xeb daf ko xeb wala mu genn wala ngaaka même bu la ko joxe sax yow da nga ko war a delloo ñun loolu daal la ñuy digal sidi ñëpp xam nañ am nga talent 4 ans de euh, carrière rek nga def loo xam ne kenn defu ko am ñu bëri ñoo xam ne bëgg nañ ku leen critiquer te mënuñu ko am ñu bëri ñu bëgg def grand théâtre mënuñu def grand théâtre di dem ci tournée yi Baaba Maal di la woo kon Sidi ñëpp xam nañ ne mën na way jàmbaar la waaye ñun dañ fi nekkal pour musique sénégalaise ku def lu baax dañ koy wax ku fi def lu safaat dañ koy wax. Sénégal.